ba baalu àq di wax ni maa ngi tudd Badaka maa ngi dëkk Kayar maa nekk bokk ci bureau station PMK maa yor lépp lu nga xamante ni mooy jëm ci wàllu ah, commission de vente bi fii ci wàllu marché Kayar. waaw fii mooy moom Kayar la mi ngi nekk marché central bi nga xamante ni fi la ñuy war a jaay bagage pombiteer bi ak soble bi fii ci Kayar. fan la pombiteer yi ci tool yi lañ koy bayee quoi ñun ñoo koy bay ci tool yi di ko indi ci àll Kayar bi quoi. waaw jafe-jafe yi nag mooy gis nga ko pomme de bi fi mu nekk nii am nu noon problème mu jaay ko ak euh, problème écoulage bi dafa am jafe-jafe ba pare problème fu ñu ko denc tamit am nañ ci problème parce que amuñu ay magasin de stockage amuñu dara comme ni ngeen ko gisee nii si naaju lañ koy teg rek loolu rek ay jafe-jafe la xamante ni ñoo ngi ci ñaan état bi pour mu dimbali ñu ci parce que waxoon na ni tamit dinañu jàppale wàlla ci wàllu ay euh, magasin de stockage mais boobu ba léegi affaire bi gisaguñ ko ba léegi ñaata ngeen di jot si ak euh, ak bi lan lan la di def waaw moom jafe-jafe la ñuy jural parce que boo bayee ba pare mënoo koo jaay amoo foo ko denc jafe-jafe am na kon léegi yàqu moo fa sës te normalement comme que pomme de bu ñu ko bayee fii am fu ñu ko denc dañuy bu bu jeexee dañuy wuti pomme ci àll bi de ko importer ji ca baykat war koo mën a bay ba importation boobu jóg ci réew mi yaakaar naa ne loolu moo ëpp njariñ ko ah ci xayma lépp bi xayma bi nga xamante ni def nañ sol bi ci wàllu pomme de terre xalaat vingt mille tonnes ba quinze mille tonnes. mais fii par jour dina recevoir ay trente ton ba quarante tonnes de pomme de terre ah ci xayma mën na jaay ba dix tonnes mën nanoo ñëw sax du jar nu teg ko fu noonu comme tey gis nga gisul leen fi benn oto bu jënd wala bu jaay ñëpp danoo toog di xaar ndax oto yi ñëwagul. ah no bari na trop bari na trop parce que li nga xamante ni moom la état bëgg ci emploi fii la mën a amee parce que liy chauffeur li ñi nga borom sareet yi ñi nga xamante ni ñooy yéegal ñooy wàcce ak baykat yi ak ñi nga xamante ni ñooy dugg ci àll bi di bu jàppale baykat yi ci àll bi pour ñu mën a euh, récolter tool yi loolu lépp ay borom kër la yoo nga xamante ni ñu ciy dund maanaam xayma bi moom neexu la xayma ko bari na trop bari na trop. waaw man maa ngi tudd Al Ousseynou Sow Euh, commercialisation pomme de terre bi laay yëngatu man maa ngi dem ci àll bi di peese di ko indi di ko indi fii man maak ba dañoo ànd euh, suñu problème mooy suñu problème majeur mooy problème écoulage bi écoulage bi dafa yéex trop euh, kon bu ñu bu ñu sañoon daal gouvernement bi jël ci ay matukaay yoo xam ne dinañ mën a organiser bu telle sorte ba nga xam ne ñun dinañu am ay financement yoo xam ne dinañ ko mën a récolter dinañ ko mën a jëlee ci borom tool yi ñëw stocké ko fii. di ko jaay normalement prix bi nga bi nga xam ne xam nga pomme de terre dafa bari dafa bari frais yow nga bay benn tool frais ci plus de un million ah nga ñëw benn jour rek taxaw nga obligé jaay ko sans sans sans pour autant nga calculer lii nga ci defoon est-ce que di nga ci di nga ko ci jotaat boo ko jaayulee plus de deux cent francs mën nga mën nga mën ngaa bañ a jotaat say frais. puisque boo ba da ngay xool da xam ne yow pertement la lay jural parce que nga am ay cinq emploi wala trois emploi nga leen di fay par mois ba pare nga jaay nga nga ñoral pomme de terre war koo jaay deux cent cinquante ba wala deux cent vingt cinq minimum ah nga ko wala deux cent yu manqué loolu te borom tool yi ñemewu ñoo téye parce que xam nañ ne buñ ko téyee day day yàqu seen loxo parce que pomme de terre bu bu ñoree ci suuf rek da ko war a dindi boo ko dindee nag war nga ko war nga ko denc bi nga xam ne war na war war na mën a am euh, war na mën a am euh, fraîcheur boo xam ne dina ko mën a tenir euh, au minimum trente jours nga mën ko écouler ci marché bi normalement ñun problème écoulage lañ am te ñu ngi lancé ñu bëgg nañu lancé message bi ci gouvernement bi mu jàppale ñu ci ay moyens yoo xam ne même bu dee dañuy taxawal ay projet yoo xam ne bu ñu dee bu ñu bu ñu bu ñu waree indi semence ñu jox ko béykat yi ba ñu ñoral ñu ñëw jaay ñu pompiteer bi ñu mën a am ay salle stockage yoo xam ne dinañ ko fa stocké ba nga xam ne. nañ ko mën a jaay normalement commerçant yi mu écoulé ci biir réew mi puisque euh, gouvernement bi jëlee na ay mesures jël euh, arrêté bato bato bi nga xam ne mooy importe pomme de terre bi cinq cinq mois léegi biir cinq mois yooyu bu fekkente ne bato bi arrêté nañ ko téye écoulage pomme de terre bi fekk stocké nañ lu ëpp lool li nga xam ne war na mën a war na mën a dem sax au moins deux mois war na mën a servir Sénégal lii suñu pomme de terre yi day day day day am day am échec. waa Padem xam nañ problème bi li ñun li suñ problème mooy Padem taxawaayam dafa xaw a des parce que affaire bi waroo yéex à temps nga war a ñëw financement yi dañoo war a génn avant pomme de terre yi ñor bu financement yi génnee avant pomme terre yi ñor dinañ ko mën a organiser telle sorte que. Euh, dinañ mën a écolé euh, danañ euh, mën a récupérer kii bi danañ mën a récupérer pomme de terre yi ci teg ko ci suñu loxo teg ko ci ay conditions yu leer nga xam ne commerçant yi duñu yàkkamti bay bazarder seen seen pomme de terre parce que am na ay ay ay commerçant yoo xam ne ñu ngi dugg ci tool yi di leen fay ay cent quatre-vingt-dix ay deux cent te loolu du intérêt béykat te normalement dañoo war a jàppale béykat yi parce que coono bi ñu ciy daj ak ak ak frais yi ñu ciy kii frais dafa bëri Je me présente, M. Adam John, membre de l'association des produits maraîchers. Par rapport à l'année dernière, dernière, où nous avons produit 13 120 tonnes, cette année-ci, on a, on a estimé la production à mille 000 tonnes. 20 000 au où, euh, nous avons commandé 20, 11 euh, conteneurs de 26 pieds, ça fait 260 ou 300 kg de pommes de semence de pommes de terre, où nous avons enveloppé environ 300 hectares. Et sur ces 300 hectares, nous avons prévu sur 20 000 tonnes. 20 000 tonnes, la récolte a débuté le 25 février 2016 et chaque jour, le marché de Caire s'alimente entre 30 tonnes et 35 tonnes. Donc nous lançons un appel aux membres du gouvernement, dont le ministre de l'Agriculture et le programme d'aménagement économique des Niaï, de nous venir, de nous aider sur le, sur l'implantation d'un de, de, de, de centre de, transformation des produits, euh, des produits légumières pour, pour, pour, pour, que nous pouvons écouler notre produit. Faute pour la, euh, euh, cause pour laquelle euh, nous, nous, de que les, les, produits se périssent et nous, nous lançons un appel aussi à la, au maire de Kayar, M. Dias, d'impliquer sa propre personne pour qu'il lance un appel aussi aux autorités compétentes du gouvernement de venir voir ce qui se passe dans la commune de Kayar sur la surproduction que nous ne pouvons plus arrêter parce que il y a le, bon, le prix est fixé à 200 francs actuellement, on vend le prix de pommes de terre à 200 francs, or que ça, nous, nous, nous, nous, nous souhaitons avoir plus, mais nous souhaitons aussi recevoir des commerces, des commerçants pour qu'ils achètent nos produits. sur, dans la localité de Kayar. Nous lançons un, vraiment un appel aux commerçants et aux autres partenaires de venir nous aider pour que, pour, pour que, pour que l'écoulement puisse passer normalement.